bàkk ba jit na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na Baye Jili Père Birahim Ndiaye mbokk yi ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax fii ñu leen di nuyoo ci wasaare làmb bu ngeen xoolee rek xam ngeen ni euh, lu ko wasaare làmb bi changé waat nañ ko indiwaat beneen xar kanam comme ni ma leen koy waxee saa su ne ngir bëgg dab seen bànneex ndax nag euh, seen bànneex rek mooy suñu yittee euh, Père Birahim maa lay nuyuwaat bu baax a baax a baax di la siyaar ñëw nañ ci tele bi pour indiwaatal leen beneen combat boo xamante ni Père da ciy joxe li nga xamante ni mooy xalaatam Père maa lay siyaaraat bu baax a baax. waaw jërëjëf ma a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi ishrah li sadri wa wax subhaanaka laa la lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim mm-hmm. eh, di ñaanal waa wasaare làmb yi nga xam ne ñu ngi safoo site bi yëpp di ko seetaan mm-hmm. eh, yal na yàlla defal leen jàmm defal leen sutura defal leen yokkute mm-hmm. ba képp ku ci am jàngoro yal na ko yàlla teggi ku ci am fo jafe-jafe muy jafe-jafe wér-gu-yaram wala muy jafe-jafe poos wala jafe-jafe njaboot bu xaw a tëra di yu mel noonu yëpp yal na yàlla leeral lépp yal na yàlla jubbanti parce que borom bi taala mooy jubal lu jub moom ma di ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp di ko ñaanal a site bi. Mm-hmm. waaw waaw di ñaanal caméraman yeeg di kontaan trop si yow di ñaanal ba si di ñaanal yéen ñëpp daal. Mm-hmm. muy xale yu jigéen yeeg ñu góor ñëpp. jërëjëf Père kon yàlla yàlla yàggal ànd bi te defal ñu sutura. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf mbokk yi kon tey dañ leen indil komba boo xamante ni euh, bokkoon na ci komba bu mag. Mm. combat boo xam ne Sénégal gépp dañ ko doon xaar. Mm. Euh, boo ko boo fàttalikoo combat bi dina la indil lu baree bari. Mm. mu dox ci diggante doomu Pikine bi ak doomu parcelle bi muy Boy Niang euh, booy Niang numéro 2. doomu Dégol ak ki nga xamante ne mooy Zos borom Dóor Dóoraat. Euh, ñu bëre woon fële ci stade Demba Diop mu noon nekkoon combat boo xamante combat bu neex la waaye amoon na tuuti lënt lënt ci arbitre bi sifflé na sifflé wut ba combat ba gis ngeen nu mu mujjee demee Zos daan ki nga xamante ne mooy Boy mm-hmm. ci jël bu amul benn werante loolu yëpp dañ ciy ñëwaat bu ñu ñëwee père joxe ci xalaatam décortiquer combat bi ku ci nekk nan la waroon def ba daan ku ci nekk nan la ban erreur la def euh, ba daanu moom booy ñaa su ko defee ñu dellusiwaat ci waxtaan bi per ay ca télé noonu ñu dem ci combat bi ana booy ñaa ana zos waaw zos a ngi nii suñu càmmoñ mhm. dégg nga booy ñaa ngi nee suñu ndejoor waaye bala maa ñëw ci waxtaan wi mhm. dugg ci combat bi dama lay jëkkee booy ñaa kii mbër mu ndaw la ak mbër mu mag mais uh-huh. magante wuñu lu bari nag. dëgg la xam nga damay wax toujours nit ak tofoom. Uh-huh. ñaari ñetti tofo ñetti màgget. Uh-huh. ñetti tofo. ñetti màgget. dëgg la kon tey jii kon magante lu bari mais nag jos moo jiitu ci làmb. dëgg la kii fekk si ko léegi moom it nekk xale boo xam ne bi wax dëgg yàlla nekk booy boo xam ne bii ñëwit jaar ci mbappat yi jaar ci anam bi góorgóorlu tamit. parce que jomam moo ko agsi fii mu agsi parce que am na ñu maasee loon làmb tey fi mu àgg àgguñu fa. kon tey góorgóorlu na. dëgg la dégg kii tamit muy Zoss tamit moom jaar ci mbappat yi moom it la tubaarkaal bi dab si ko mhm. moom it mu accepté mhm. mu accepté bëreeg moom nag muy ñaari combat bu neex parce que kii day yaakaar ne na mooy booy ñaar day defee ne na topp mhm. dafa ne benn mbër mën tukoortu ko mën a téye loolay teg ci kanamam kii tamit euh, day def ci boppam ne xale yi dabaguñ ma te nag damay wax leen de gis nga mbër saa yoo demee ba gore di la ñimee di la kat dëkk bàyyil xel ne nag ah, war na maa lu ma daan def naa ko yokk. Mhm. bu fekkee dem naa bu yëg ne sama doolee ngi jeex. Mhm. naa bàyyi làmb ndax kenn du ko ñett. dëgg la saa yoo ko ñettee rek am ci gàcce. am ci gàcce sama génn góor daal wax ne mbër soo tolloo ci bëre. Mhm. di def dem ba war koo bàyyi te bàyyiwuloo ko. loo ci defoon nit dina la ko def. dëgg la. maanaam loo ci mësoon def nit. loo ci mësoon def nit. dinañ la ko def waaw waaw. ba ngay toll sa digg doole boo dóoree nit mu daanu. dinañ la dóor nga daanu. waaw boo mbotee nit dinañ la. boo toroxal ni des na la xool ko rek mbër yi fi ñëdd yëpp nga xam ne dañoo seen temps jeex te bàyyiwuñu. dëgg la xoolal fi ñu mujj. wallaay ay jël yu soof leen yoo xam ne loolu daanu leen woon. dëgg la lu ko waral. fa làmb jeexee dañu war na bàyyi làmb te bàyyiwuñu ko dëgg la moo tax dara doo ko ndab kenn du ko ñël loolu wax mhm. su ma dee ba yëg sama yaram ne mënatuma may félicité Yékini mhm. waaw di ko ñaana gudd fan ak wér. dëgg la carrière yàlla na ko yàlla rafetal. parce que xamul tax. parce tey jii ak tur bi ko yàlla may ci làmb bi mu commencé gis ne booy yi am na ñaar dafay tegal. daal di bàyyi xam ne teraanga newul ci làmb rek. loolu na. moo tax moo boobu laa ko félicité. dëgg la moo tax ñoom dem kii nag yaakaar na ne xay na bu ñëwee combat bi day yomb. parce que booba Zosit jeexalul. dëgg la nekk Zosit nekkagul fo àggagul foofu. moo tax combat bi mu metti woon ci ñoom ñaar ñëpp ay ca ñu dem kii day def booy ñaan day defe ne jaar sàkk la tey xéewal laa am jaar sàkk laay am. waaw ah. <laughs> mais kii nag ne ko doon fii du jaarukaay sàkk. du jaarukaay sàkk. waaw ñu dem. Mm. ay ca ñu dem sëñ ci taxawaay bi laa lay. njëkk ñoom ñaar a noonu euh, mais dafa mel ni ñoom ñaar ku ci nekk pied droite ngay teg. Ah, ah. xam nga am na moo foofu fii nag moom dina doon problème parce que bu njëkk da ma doon wax naan kuy teg pied droite yow la gën a jublu mais combat bi ñoom ñaar ñëpp ñaari pied droite la. très bien foofu nag. léegi nag ñoom ñoo ca yem nag ñoo yem ci combat waaw parce que kenn ku ci nekk boo tegoon gauche moo lay gën a jubu. waaw nga ñu tegal la droite. am nga am bi kat. dégg nga li wala kële tamit tegal nañ droite ñoom jos mii bëri gauche moo gën moo koy gën a jubu kii teg na droite xam nga jaa jaaxle ñëw na kële tamit gauche koy teg gën a jubu waaye tamit kee tegal na ko droite jaax kon ñoo ci bokk yam ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk jaaxle na ku ci nekk sa morom tëju na ci yow mhm. te nañ dem nga xool ay ca ñu dem mooy kon la ma la waxoon ñëw na fii dëgg la fee waaw ñu dem ñu ngay leewaatoo gis nga bi gisee bi ñu leewtoo xoolal taxawaay bi baax na bu zos bi waaw taxawaay bi ñoom ñaar taxaw taxawaay bi baax na hmm. mais gis nga zos laay xawal ba baissé tuuti hmm. gis nga kenn mbër du nekk sa sa côté nii hmm. nga taxaw jublu léew nii waaw da ngay sa bis danga nga koy redressé jàkkaarloog waa ji dëgg la danga li ma la dëgg la waa ji fii la nekk du ma def nii maanaam maanaam xol bis bi ni mu jublu nii ak boo ñaar fi mu féete damay redressé wu jublu moom redressé wu nag ci tànk yi la parce que boo defee nii. maanaam ni mu tourné jublu nii fii ne bu doon song day jafe ci moom mais bu tourné tànk yi nag tànk yi jublu ci booy ñaa bu song day yomb. dëgg la. comprends nga li ma la wax mm-hmm, mm-hmm. tànk yi bu defee nii. Mm-hmm. maanaam waa ji nekk sa côté droit nii nekk na le. say tànk jublu nii pour nga dem nii day jafe. dëgg la. waaye bu fekkee waa ji dafa nekk sa côté droit nga bëgg a jóg say tànk ngay wëlbati mu jàkkaarloog waa ji kon Zoss dafa war a tourner tànk yi. jaaxal a tourner jaaxal moom moo tax dem bi day yomb ci moom. Eh. génn bi day yomb ci moom. dëgg la su bëggee dem mën naa dem mais su bëggee génn day génn. Mm-hmm. kon d' accord. ñu dem. ayca ñu dem waaw ñu léewtoo waaw. ba tey nga noonu mm-hmm. jàkkaarloo ñoom. waaw ñu ngi léewtoo. la ga booy ñaa garde bi baax na. Mm-hmm. waaw gis nga booy ñaa gis nga xoolal gis nga Zoss xam nga xaw naa redressé wu. di wax si gi ba parce que dafa demoon côté juba dafa jubaloon côté ba nee de trop. waaw ñu ngi léewtoo ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne bëri ba day tëju ci yow mhm. parce que ñaari pied droit yi jàkkaarloo ko bariwul ci bëri nag moo tax combat bi père dafa dem ba ñoom ñaar kenn ñemewul jël initiative déggoo lépp moom kay li ma la wax téere la ba promoteur beeg waa CNG ñu di wax ñaari mbëri lu waaw parce que ñoom ñaar kenn ku ne xam nga kon foofu li ma la wax mu ngi feeñ mhm. bëri bi dafa tëju ci ñoom ñaar ñëpp parce que booy ñaax bu fekkee kii bu doon bu doon pied gauche sa teg. Mm-hmm. ah yow tam kon kon booy ñaax jëli na ko yàgg na. Mm-hmm. kii tamit bu fekkoon droite bi la jël ko ba yàgg gis nga. Mm-hmm. day yor rek day yor na ba jàpp ko. mais bi mu ñëwee gis nga bi mu yoroo pour jëli ko parce que bëgg naa ko bi mu yoroo pour jëli ko. Ah. maanaam song bi song bu ñoroon la. moom booy ñaax waaw. song da nga naan bu xëy waa ji fël jam la gauche wala mu jam la droite nga fël droite bi yëkk mu daw sigi nga mu daw sigi nga daw Mm-hmm. buub noonu la ñuy mm-hmm. songee. Mm-hmm. waaye daw rek góolu ji waa maanaam yóotu ko loolu songum yooru la. moom la booy moom la booy ñaa def fii. père est que songu booy ñaar bi fii du lu waa CNG bi wàcc ci kaw wax booy ñaa moo tax mu jël initiative boo xam ne arrangé wu parce que booy ñaar bi muy jëli zos ñëpp xam nañ ni zos forum mooy bu la tëroo dalay plaqué loolu ñëpp xam nañ te booy ñaa daw na jëli zos ci jëli boo xamante ni ñorul ci combat bi. waaw man du ma mën a wax ne waa CNG moo tax mu dem parce que dugguma ci biir xolam. Mhm. ba xam la ne ci biir xolam. mais xam naa ne daal mën naa am tamit bëgg na bëri bi jeex. Mhm. parce que Leewtoo bi yàgg na. coow bi daal bëri bi mu ngi bëgg a neexoon na ci début bi ñu ko annoncé. mais baa ngi bëgg a soof. soof mhm. soof parce que Leewtoo lu yàgg songoowuñu bëriwuñu. Uh-huh. te ñëpp yaakaar ne bëri bu neex la. loolu tamit day soofal bëri ma ne nag léegi nag xaaral ma ko bëri bi jeex. parce que ñu bëri mën na bu fekkee ay coacham ñi ngi moom. lu ñu koy wax fexe koo jàpp. dëgg la tese koo jàpp moo tax mu def jëli ko bi mu ko jëlee nag ba jàppanteeg moom nag fii la di bëri di feeñee mhm. parce que ne xam nga léegi lu ma bëgg nga xam ko bu baax jëli gis nga bëri mhm. feeg jaxasoo amul rek jël jëli doo am feeg jaxasoo amul jël doo am waaw c'est rare nga si ay bëri dóor mu ci dóor mu daanu te te waa laalanteew leen yooyu hasard la rek bu ciy mhm. feeñ maanaam da ciy feeñ rek mais du toujours mais bëri mu ngi fa bëri jë jaxasoo rek koy jeexal uh-huh. bëri jaxasoo rek koy jeexal ay ca ñu dem ñu de gis nga jàppante nañ fii. waaw ah, ñu ngi ñu ngi wutante. waaw ah. yaa ngi wut. xoolal gis nga xam nga mu ngi téye ci téere bi écartement booy ñaa bi waaw ah. ak jàpp zos bi. waaw xoolal ma bëri zos zos fii mu téye nii ci téere bi la téye. Mhm. ci téere bi la téye mais téye ci téere bi. Mhm. téere bu fekkee dëgër na. Mhm. mën na ko bay dara mais bu dëgërul de dagg. kon téye ca loxo ba ca biir ci ci biir sa ba. moo ëppoon doole ci moom wala boog loxo bi mu dëbb ko sol ci biir poxtaan bi. waaw fii. xam nga fële man gisuma ko. Uh-huh. waaye loxoom bii mën na ko sol ci biir poqtaan bi. moom Zoss waaw. Uh-huh. ñu dem. ay ca mu ngi koy xëcc. waaw xoolal père fi Zoss teg loxoom. voilà xam nga Zoss dem na. Zoss fi mu teg loxoom nii. Uh-huh. xam nga jos foofu teg loxoom nii. loxoom ngi ci suuf. waaw loxo loxo Zoss booy ñaar loxoom moo ngi noonu ci kaw. loxoom booy ñaar moo ne ci kaw nii. waaw moo dégg nga foofu rek fii rek buntu la. parce que ubbi na bunt bi booy ñaar fi mu juume fii ah. bi dugal ko ci biir hmm. yaa ngi def loolu mooy freiné mooy freiné Zoss su ko defee bu plaqué day fël loxo bi rek hmm. Hmm. moom booy ñaar waaw déedéet waaw bu bu Zoss plaqué day fël loxo bi loxo bi lay fël rek da ko naan nii rek mu na poqtaan bi ba jaar na ci parce que loxo bi mu ër nii su ko dugaloon ci biir du man du ko du ko maanaam du ko mën a plaqué mais su plaqué nii rek lay def effacer loxo day ràcc effacer rek daal di koy tuur laal. Hmm. wala mu wër ko ndomb téye ngemb li ñu dem. ñu dem. gis nga bàyyi mu dem. waaw bàyyi mu dem. mu plaqué ko. daal di ko plaqué waaw. gis nga da koy plaqué. waaw voilà gis nga fii xam nga dañoo ànd dem. waaw xam nga kii booy ñaar sëpp na sëpp na kii am. waaw waaw léegi mais àggaguñu suuf nag. waaw te àggaguñu suuf kii tam tànk bi laalu suuf. waaw mais kii tam tànk bi laalagul suuf mais coon ci rek moo dem. Hmm. mais mu ca kaw nag xam nga loxo kii moo nekk nii loxo. Euh, zos zos moo nekk nii ci biir. loxo kële bu ci biir. fii loxo bi mu téye fii nii. léegi tànk bi rek la war a mën a ràcc. zos fi mu toll nii daa mel ni da koo njett ci suuf rek. fi mu toll waaw mais loxo bi la waroon a ràcc rek dem. loxo bi a ràcc rek. ñu dem gis nga tey fi mu téye nii bu fii ne fii ne nag gis nga nag booy. Hmm. gis nga boo déggee ñuy wax diw mun naa bëri mën naa bëri. Hmm. ci action yu mel nii fexe ba bañ faa àgg. moo am solo. Mhm. fexeel ba bu mu la dal mukk ci biir bëre. Mhm. waaye bu la dalee nag ni nga cey génne loolu mooy xam-xam nag. loolu mooy xam-xam loolu mooy mën a bëre kon. voilà loolu mooy mën a bëre. waaw mhm. ah, mooy di action bi nga xam ne yëpp koo faroon ak yow dem na ba ne yaa ngi dégg li ma la wax. bu boobaa nag ci ngay xool daal ne ah fii nag ci ngay ànd ak sa sabara mais fii li la koy may nag nga ànd ak sa sang froid ak sa xel mu dal. parce que parce que ñu àggale fii parce que sa xel dal yombul. ñu àggale ba ñëpp ne ku faral yow du mooy ne wooy jee sama waaji du mooyu nga xoolaat daal del suit ah naa la xel mu daal jafe na mu ngi mel ni mbër ñu wër ko ndomba rek mu génn ci si waaw waaw dëgg la ak action am confiance parce que gis nga lii lépp li indi bi yëpp yëpp yëpp yëpp booy ba mu aj loxoom ci kaw mhm. ubbil ko bopp bi waa ji daw plaqué ko dana dugal loxoom ci biir rek mhm. su yootoo plaqué bi lay ràcc rek ne nii feel loxo bi mu deñ mhm. su ko defee xoolal moom mooy euh, euh, si boppam mooy dem waaw ñu dem. Euh, mais père euh, sëñ Bass balaa ñuy dem. père fii li li ma jaaxal. Ah. mooy Zoss dafa jëlee booy Niang ci biir géew bi. waaw di ko yóbbu ci biti géew bi. waaw te ba léegi arbitre bi sifleegul action bi mu ngi continuer moment bi action bi dafa commencé ci biir géew bi. waaw jéggi saako yi ba ci biti. waaw arbitre dafa war a atte wala action bi mooy continuer ba tey. voilà laaj nga laaj bu am solo. Mhm. xam nga saako yi. wala barrière yi. waaw suñ ko fa defee lu ku fa yegg xam ne yegg si nga ci cappaandaw bi war ngaa mën a taxaw. boo seetaan box bi. Hmm. gis nga même football ba ñëw ci football laa jëkkandi. waaw fi fi nga xam ne boo football lu demee boo football ak see. li ñu tuus bi ci ligne bi lu mu doon. tuus. du ñu arbitre du ñu arrêté. Hmm, wala simet. wala wala simet mbaa waaw. Hmm. wala tuus xam nga tuus lay doon. waaw dégg nga mu dem ci côté ba ne la ci ginnaaw kaay muy tuus wala ça dépend ci ki ko génne. waaw dégg waaw boxeur kenn ki wéeroo ci corde yi nu ñuy def. dañ koy àtte indiwaat ko. waa kon barrière yi pour lu mu doon. kon saako yi pour lu mu doon. pour boo dalee ci saako yi ñu àtte indiwaat. bi ñu bëree ba si biir saako yi at bi dafa doon ciblé buy ciblé àtte ci digg géew bi. mais dañu ne règlement bi xam naa euh, loolu tamit dinañ ci waxaat parce que nee nañ règlement bi dafa la may boo boo boo jàppee mbër ci digg géew bi. waaw di ko yóbbu ba ci saako yi. waaw euh, action bi fii jeexul. waaw arbitre bi amul droit àtte. ah déedéet loolu loolu affaire la gis nga loolu. Mhm. loolu xam loolu nag moo indi litis yi nag. beneen affaire la loolu. gis nga nag euh, euh, Abdou Khadre. Mhm. loolu indi litis yi am ci làmb yépp. Mhm. ba freiné làmb ji ku fi mën a ñëw suba. ak ngeen kubir bi ñëw te dindi woo loolu. defaroo làmb. ñaari mbër dañu am arbitre. suñuy léewtoo di léewtoo di léewtoo ba jige ba jige ba jige euh, saako yi wala jige jige barrière yi. da ngay arrêté bi. waaw da ngay arrêté da ngay bi. indi leen ci digg géew bi. dëgg la bu kenn ki continuer di arbitrer di arbitrer di di arrière di dem saako yi nga arrêté combat bi jox ko avertissement. di ko bëree woo. Hmm. ñaari yoon ngi di la yóbbu saako yi ngay def si yoon. Hmm. waaw parce que su suñu bëree boobu ba dugg saako yi nga teg sa ñaar loxo ci ñaari ci ñaari ginnaaw yi. Hmm. da ngay ñëw pour pour wan arbitre yi xam nga xam nga nit ñi toog si kaw si bu ñu dégg cible bi. waaw est-ce que dégg nga li ma la. xam nga du dégg cible. waaye da nga naan teg da ngay teg sa loxo. waaw ci ñaari ginnaaw yi. léegi ñoom dégg nañ sifle yi waaye ñiy seetaan it gis nañu nga teg sa loxo seet seet ci ci ñaari ci ci ñaari kii mm-hmm. Mm-hmm. ci ci ñaari ginnaaw mbër yi mm-hmm. kon kay jeex na kon xam nga ne àtte bi taxaw na kon kenn du werte sifle naag sifle wul woon na sifle woon na sifle wul ah dégguma ko dégguma ko waaye teg loxo fir dañu war a àtte parce que ñu yéen a ngi dugg saako yi loolu benn la ci ñaareel ba kenn ki ngembam tas ba nga xam ne bi ngemb laa ngi lang da ngay arrêté combat bi mu taxaw fee defar ngembam ba mu defar ba mu jekk takkaat ko takkaat ko dugal ko ba mu dëgër nga hmm. ciblé waat mooy yoon mooy yoon hmm. boo ñu arrière nga topp waa ji jël na action bi dawale ne ko song ba ñu génn saako yi kooku rëcc la hmm. waaye sensu ki ñu dawale ba génn saako yi la parce que sensu ki dawale ko ba génn saako yi la parce que man foofu mën na ne ah suñu woon saako yi de day daanu suñu woon saako yi day daanu waaye yaa saako yi may na ko bi ñu ko sëccee moom mën a dawale parce que dafa am ñaar dafa mbër yu mën a am arrière ak mbër yu mënta arrière gis na mbër mi mënta arrière saa yoo ne coppeel boo dawalee mu xool fi muy tëdd. dëgg la d'accord la. dëgg la waaye mbër mi mënta am mën a arrière. Hmm. mën nga ko songa dawale ko doo ko daan boo ko dawalee ñaari yoon bu mu wootee wala mu pàdd la da ñu hmm. boo leen dawalee ñu pàdd la wala ñu nooju la wala ñu wéyale la. ñu dem ci action bi xool fi muy mujj. waaw gis nga fii. waaw daan na ko. ñu dem ñu dem continuer arbitre bi àtte na. àtte na waaw. waaw léegi nag moment bi hmm. Euh, la ñu xamuloon dañuy bëre wala dañuy dellu siwaat combat bi arbitre bi jox na Zoss ndam waaw parce que xam nga euh, combat bi fu mu commencé yàqoo hmm. ba ñu àggee génn saako yi te ñu war war ñu àgg saako yi dafa la woon àtte combat bi ñu jegee saako yi ñoom bi ñu seegee saako yi ba nga xam ne bi jéggi nañu saako yi xam nga jéggi nañu saako yi waaw boobu rek la waroon àtte indiwaat lañ ci digg géew bi dëgg la waaw mais action bi jël na ko ci géew bi terminé daane na ko ci fële song nit mais jël dinaa la wax lenn hmm. ak ñi seetaan yëpp gis hmm. nga euh, mbër daawul tiitaroo jéewu la jëlu làng. Hmm. est-ce que d'accord nga man. waaw seetaan laay waxal dama ne bëri. daawul jom ji nekk ci làmb dama ne bëri foog reer mais ku daan rus. waaye dama ne lu bëri bu njëkk mbër daawul tiitaroo jéelu làng. day hmm. dem ba ci digg géew mu doog laa. ma ne jaan jéelu bu amul benn werante ci biir làng gi amul werante. Ah. loolu la mbër di tiitaroo. muy benn. Hmm. ñaareel ba mbër du tiitaroo avertissement laa ko daane. am na ñaar am naa benn. wala am na ñett am naa ñaar mm-hmm. loolu ba du ko tiitaloo kooku dem sa kër waroo jël ay ndem di bàkku wala di woote cérémonie wala ñu dee waroo ko def parce que daanoo wallaay parce que nag jii li nañu waxtaan mm-hmm. lambo di ko yàq ngi ci de xam nga lu ko waral mm-hmm. koo am gor la woon as gor a ko daan def dëgg la di ko wane am ngar mi pire ci biir mais ngar mi googi nag mu ngi réer ñu ne yii ñoo ko doon def gor ah. jàmbaar ak ngar mi waaw ngar mi googu nag mu ngi réer mhm. ah parce que bu fekkee boo poussé nit ñaari yoon ñett bi ñu jox la victoire nga tàll say loxo di bàkku dem seen kër dajale ay sabar ak yëpp di bàkku ne yaa daan mm. noo kon ngar mi mee ngi bëgg waaw song nit ki tamit ba wax ko ci biir ñi mu daanu ci kaw nit ñi nga ne yaa daan mm. loolu na ngar mi la géew bi kay dañ ko wut taxaw lañ ci biir bu gëri mm-hmm. boo ma ne daana ci biir géew mu leer nañ loolu moo doon moo tax arbitre yi mm. yàq lu bari parce que ñoom it dañoo mës sa bëre dëgg la mës ñoo ko ci livre mm-hmm. amuñu fu ñu ko jànge fooyewuñu ko la yow fooy wuloo ko jàngoo ko. mais itam am na ci loo xam ne lii boo ci demee boo ko bëggee ñu la kay àtte ko. Mhm. mais day jafe mhm. arbitre yi mhm. itam boo gisee arbitre football yi nañuy def dañuy arbitre football boo xam ne dafa football ba bàyyi football. dem jàngi formation. ñu jàngal la wala boog nga xëy boog nekk footballoo mais nga dem jàngi ko parce que ñoom football monde bépp koy def. ñu wutal ko livre ko suñu bëree nag ñun nag ñoo ko am Sénégal rek ko ko am kon bu ñu demee ba ko def. nañ ko jox ku ko xam ku koo xam ne kii li muy àtte diggante bu borom la ciy xool. Mhm. waaye nii waaye nii ñu arbitré nii. du mhm. arbitre. Ah, ah, kon combat bi ànd nga ci wala àndoo ci. ànduma ci commencement ba la yàqoo. Mhm. parce que bu ñu saako ba ànd saako yi bu génn saako yi dañu leen war a àtte. a ci digg géew bi ñu bëriwaat. waaw kon loolu mooy yoon noonu la demee. waaw daan. waaw dafa kàjj bi. jël bu am mais nag moom dafa bàyyi action ba action ba jeex loolu. li wax tubaab di wax un coup un coup passé. a laay fer. dóor la kurpañ ba ne ma baal ma. baal ma amul fenn de. amul fenn. wallaay wallaay dafa bàyyi ba lépp passé mu daal hmm. ko jox a ko ci biir géew moo tax am na ci loo xam ne arbitre bi ko yàq. mais per seetlu nañ ci booy Niang dépp combat bi ba léegi. Hmm. combat bi bokk na ci combat yi ko gën a yee ci làmbam. waaw bii ak ama neex. parce que depuis boobu ba léegi ñu ngi gis ni booy Niang Boy Niang numéro 2. Hmm. mu ngi màgg. waaw ci bëre. Mhm. mu ngi màgg ci xel. Mhm. mu ngi màgg ci làmb surtout ci jëmb ji. waaw te loolu yëpp ci combat yi nga xamante ne jóge na ci euh, moo ko ko may. Euh, mu jëm ci kombaa bu mag diggante ak Tapha Tine loolu moom xam naa dinañ ci gën a ñëwaat. waaw mais mbokk yi loolu lañ leen indiloon euh, diggante booy Niang numéro de ak Zos. Hmm. doon leen décortiquer kombaa bi ak Père doon leen ci waxtaan Père ma lay jaajëfal bu baax a baax baax. waa jërëjëf xam nga nit lu mu yokku rek moo cay dellu hmm. ginnaaw. Hmm. Mhm. lépp looy def rek te yokk wàcce rek xool ne yaa ngi dellu ginnaaw dëgg la mooy lu mu mën a doon nag laa wax de mhm. dama CRS bari na la loo nekk di ci yëngu mhm. na nga ca gis yokkute soo ci gisul yokkute xam ne yaa ngi dellu ginnaaw te dellu ginnaaw kon musiba la baaxul yàlla ci yàlla kon moo tax boo yëpp noonu la boo ñaa boo gisee mu góorgóorlu ba daa bu àgg fi mu àgg di xam na làmb njëriñ a ngi ci bàyyam daana bëri xëy na moom li mu am ci làmb bàyyam amul genn wàll dëgg la dëgg la dëgg la jur yu si si réy yi mu am mhm. am ko bàyyam amu ko te moo jur doomam mhm. kon nga xam ne yàlla moo yemalewul dara dëgg la ku nekk ak sa chance kon bu mhm. góorgóorlu am ci def mérité na ko làmb la mais looloo ko tax combat yi nag parce combat mooy yéen nit combat dafa am yoo xam ne boo àggee sa kër da ngay teg galaaj yi tiir yi fële wax naa téere yu bari yooyu am na lu ci bari loo xam ne eh, am am maanaam amu ci solo. Mm-hmm. xam nga wax naa la ko sànq suñu waxtaan. dëgg la danga koy teg de côté. Mm-hmm. ba bari ci amul njariñ. Mm-hmm. lu ci gën a bari njariñ mooy toog xool seet taxaw seetlu xool sama carrière lan moo ma téye ci combat bi soit dama ragaloon waa ji wala ni muy bëri moo ma jubuwul. wala boog bi ma defee nii fan laa joomee ba mu am lii. boo liggéey bu ma dajee yow du ma ko def. dëgg la ah boo juumee xam nga oto bi nga yor tey di ko dawal nii. Hmm. soo jaaree ci benn doo daan gisoo ko. Hmm. mu tëj la ba ca kaw sànni la. Hmm. boo fa jaatee doo retrograde. maa la ko wax di nga wàññi ba mu suufee. ah loolu yaa dina jërëjëf Père Birahim. Euh, mbokk yi tey loolu lañ leen indiloon euh, bàyyi ji li la Père Birahim. di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ñi nga xamante ni nag. Pierre moo leen daan gërëm moom tey maa leen di jël gërëm. gërëm association Sage. waaw ah, des sages daal waaw de la de Moustapha jiite ko. Pierre Moustapha Gueye jiite ko fa. mooy ah, Malal Ndiaye. waaw Boy ak Boy Sey. waaw Boy Sey xasida xasida. Ah, waaw am nga Boy Sey xasida yow. <laughs> <laughs> Boy Sey xam waaw dëgg la ak euh, ñoom Serigne Kane. Serigne Kane. waaw ak Mariama Cissé bu mu nekk ak. ak Mariama Cissé bu bëgg la ñooñu tamit ndeysaan ku baax ak Biram Ndaw Ndoy Biram Ndaw Ndoy ak jabari Seynabou Ndoy fii la ne moom Seynabou Ndoy ah, soxnaam ñu koy nuyu bu baax a baax ah. ak ak Mbodj Sonatel ah waaw ñu koy nuyu waat bu baax a baax baax ak sëñ Fallou borom ceeb bu dijj bi borom ceeb bu dijj bi <laughs> ay père la si bi de ah déet moo moo koy togg la ah. moo koy togg la de ceeb bu dijj bi moom moom ca jabaram ko mën togg ceeb la dëgg xam nga ñooñu tamit mënuñoo fàtte waaye Pa Mayel Diop it fu ñu sawee dañ koy gërëm man bokk naa koy gërëm parce que teraanga yi may defal ak fi may féetee wax dëgg yàlla ma sañoon di ko di ko ñaanal rek yàlla yokk ko yokk si njaboot yokk amiin amiin yaa rabbi parce que nit ku baax ko lay defal teraanga bu ne mhm. ba xam ne ñaanoo ko mhm. newoo ko dimbali ma ci nangam newoo ko dara mhm. day toog rek yónnee la teraanga kooku ameel nga ko bis ameel nga ko gërëm dama koy dégg rek Pa Mayel waaw nit ku baax la war nga xamante ak moom yaa yaa baax ak ñëpp war nañoo xamante ak moom suñu papa ji di lay yàlla gudd fan ak wér waaw nit ku baax la baax ku mën a def. laa doon dégg ñu ministre bi takk maxtum bi. waaw mu ngoog. cëm nit ku baax moo nekkoon ay moo nekk aéroport. taalibe taalibe taalibe baax bu baax. dëgg la dëgg la xam naa ne dara jarul yàkkamti na. dëgg la incha allah àddina lu hmm. jot yomb. wallaay wallaay hmm. père. moom lu baax lépp ngi ci kanam. fekk hmm. yaa ngi def lu baax. xam ne lu baax ngi ci sa kanam. jërëjëf père. kuy def leneen nit. leneen a ngi ci sa kanam. wallaahi kon yàlla yàlla xeetoo ñuy nekk ci lu baax. dëgg la jërëjëf mbokk yi kon loolu la ñuy tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko <laughs> ba ëllëg incha ci beneen jàngat làmb jërëjëf Père. waaw jërëjëf Djily kontaan ci yow trop jaajëf. ndaanaan laa ñaari yoon kon boo booba laa mëne boo jaar fafa laa mëne mën ci mën ca bee ci yi boor ak ci njaay nu roowu mag ñoom tuuna rëy ma waa na roy maa ko baaxi ñii ma yor si